bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayidina wa maulana muhammadin al amin wa alihi wa sahbihi wa xayri xadimihi wa ummatihi ajmain asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndorkeel ci weeru tedd bi di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ko ñaanal suñu borom mu mottali yéeneem yëpp mu sumb ba sumbaat yeneen te ànd ko taalibe yëpp ak murid yi di ñaanit bis bu tedd bi ñu jëm yàlla kàttanal ñu bañ fekke ko ca defe ko ca anam ba ko sëriñ ba gërëmi ñu fekke wat ko ay ati at ginnaaw loolu ñu ngi sant mbokk yu tedd yi fi jóge léegi Cheikh Moustapha Bachir ak Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacké ci jataay bu am solo bi nga xam ne wuute wut ak jataay bi ñu ngi leen di sant bu baax ci seen kàddu yu rafet ak seen euh, taxawaay ci yoon wi ak ci diine ji yëpp ginnaaw loolu dañu njëkkanteeg waxtu wi rek mbokk yi euh, jataay bi yaakaar naa li ko li mu wundu li ko waral ñun ñëpp xam nañ ko muy mbokk mu baax moo xam ne gëstukat la boroom xam-xam la muy docteur Ahmadou Mokhtar Sylla def ab téere bu am solo ci Cheikh Mouhamadul Muntaqa moom la bëggoon a gaaral téere bi nii defoon na ko ca Ndakaaru waaye ci ndigalu sëñ Muntaxa mu joxaat ko ndigal mu defaat ko fii ci Touba kon jataay bi yépp ci ndigalu sëriñ bi lañ koy defee euh, sëñ Moxtaar mi nga xam ne it moo def téere bi di gëstukat di jàngkat ci tënk rek ñun ñëpp xam nañ ko jàngkat la gëstukat la mu ngi jàngee alxuraanul karim fii ci tuubaa ginnaaw ba nga xamee ne wattu na ko wattu bu sell bind kaamil ci loxoom ay kaamili kaamil macha allah ginnaaw loolu ci la dem ca Mauritanie di jàng lu jëm ci wàllum jàngum xam ci diir bu diir bu xaw a yàgg ginnaaw loolu la dellusiwaat ndaam fa amee bac euh, ca mahadul azhar bu ndaam dem amee bac ci la dem Maroc fa la amee licence fa la amee it master ci wàllu xaanuun mooy lu jëm ci wàllu droit ginnaaw loolu la dem France moom it euh, fa la euh, xóotali lu baree bari ci njàngam ba fa la amee doctorat ci tënk rek di gëstukat nag di bindkat bind lu yaatu lu bari ci ay euh, majaalaat yu wutee wuute téere bii nag li tax mu bind ko muy taxawaay boo xam ne sëñ Muntaxa am na ko ci moom waaye am na ko ci muridisme yëpp ndax lu bari ci jaar-jaaram ci njàngam sëñ bi da ko cee taxaw sëñ Muntaxa ba ci génnam bu njëkk ca Maroc ak génn yim génn yépp ca musta umpulanteeg moom ci dara ci ab taxawaayam ci doomoo goo xam ne sëriñ bi doomoo na ko ko waaye mu nekk it taalibu sëriñ bi séq ak moom it lu baree baree baree bari ba démb rek ñu ngi toog ci jotaay am kilifa gu ne ko may dégg sëñ Muntaxa de lim ma wax ci yow musuma koo wax ci nit sëñ Abdou Samad Sohaïbou wax na ko démb euh, moo ñu boole te lim ma wax ci yow musuma koo wax ci nit looloo tax euh, danaa la gën a jàpp loolu rek doy na sëkk rek euh, luy firndeel digganteem ak sëriñ bi taxawaay yu am solo yooyu nag ak jege gum jege sëriñ bi ni ko sëñ Moustapha Bassir waxee léegi sëñ Muntaxa daanaka bindkat yëpp mën nañoo bind ci moom ci ay majaalaat yi wuute te kenn du bokkaleeg sa morom doo bind ngir taxawaayam ak am solo boo xam ne am na ko solo moom sëriñ bi moo tax sëñ Moxtaar bind téere bii nii ci làkku arab bind ko ci làkku tubaab muy téere bu am solo boo xam ne sëñ Muntaxaa ni nekk xalifa Seexul Xadiim xalifa boo xam ne exemple la maanaam njiit la ci lu jëm ci dekkalaat ak feeñalaat lu jëm ci wàllu xam-xam ci mouridisme loolu mu le mu mu mu leeral ci lu baree baree bare yoo xam ne mbokk yi war a jël kàddu ñu ci baree bari danañ ci indi ay leeral xam naa ngir njëkkanteeg waxtu wi rek danaa tudd ñi nga xam ne ñoo ci war a jël kàddu te kàddu yi dañuy sàkku rek mu tënku lu mu gën a tënku rek moo ci gën ki ñuy njëkk a jox kàddu mooy sëriñ Serigne Souhaïbou Mbacké Ribis moom liir na téere bi am na ci it ay genn ko yu mu ci def yu baree bari xam naa bu jëlee kàddu moom dana ci leeral ginnaaw loolu sëñ Bamba Mbay mii sama wet gi ci des moom it dana ci indi ay leeral moom it ci ay genn koom ci làkk tubaab su ma juumut waaw nee na ci wolof kon sëriñ Sohaybu Mbàkke Ridis bu noppee docteur sëriñ naa Mbàkke moom it dana jël kàddu incha allah bu fekkee sëriñ Xaadim Jóob ñëw na moom it bokk na ci ñi nga xam ne ñoo war a jël kàddu ñii mooy ñi nga xam ne ñooy jox seeni commentaire ci lu jëm ci wàllu téere bi bu noppee nag dana am kàddu goo xam ne suñ muxtaar moom moo koy joxe euh, suñ noppee insha allahu taala ñu yëkkati jataay bi kon damay jox kàddu gi sëriñ Sohaybu Mbàkke bismillah am mbégte lool ci teew ci jotaay bu tedd bii euh, nga xam ne suñu mbokk suñu xarit docteur Mouhamadul Makhtar Sylla moom moo ñuy foo ci lu am njariñ lool mooy téereem bii nga xam ne moom la génne ci ñaari làkk muy ci français ak ci arabe euh, yàlla na defal ñu tawféex ñun ñu nekki bu fàdd nekki bu yoo joxoon nañu ko ñu dégloon ko bi mu génnee ji ba pare joxaan nañu ko ñu yëpp d'abord dañuy sant suñu waxtaan dafa bari comme ni ma ko waxee ci biir livre bi ne moom Cheikh Amadou Mountakha moo ko dimbale mu jàng loolee meññ mi dafa war a feeñ meññ mi nag bokk na ci li tax mu feeñ mooy mu bind moom ba fi mu bind dara bàyyi fi kon d'abord euh, bind gi bind rek loole lu am solo la ñu ngi ko ci sant bu baax di ko ci gërëm parce que ñu gën a bari ci jàngkat yi sawuruñ di bind ëpp par solo yooyu yëpp mooy yittewoo gëm yittewoo xam-xam nga xam ne loolu moom avant muy nekk sëriñ Touba la ko daan def ba ni mu nekkee Serigne Touba Serigne Mokhtar ci biir livre bi wan na ci loolu ne Serigne Mouhamadou Mountakha avant muy nekk Serigne Touba daan woo borom xam-xam yi ca këram. nit ñi dañuy ñëw indi seen i xasaayit foofu noonu di ko fa way bu ñu noppee Cheikh Mouhamadou Mountakha. Euh, teral leen ngir teral xam-xam te loolu dafa continuer du ko def ginnaaw bi mu nekk Serigne Touba. kon ko fonk xam-xam la te it euh, il faut mu fonk xam-xam moom parce que la li wane ne borom xam la moom moom moo def bi téere bi moom moo def euh, préface bi euh, te préface bu rafet la macha allah te ci biir livre bi sëñ Moxtaar indi na ci ay abiyaat yoo xam ne ni Cheikh Ahmadou ko way kon moom bu jàngee moom ba jàngee ba xam xam njëriñu xam-xam looloo taxan ne moom it mu fonk borom xam-xam yi kon loolu rek war naa taxaat ñu bind ci moom kon ne ñu Moxtaar bi ñu ko tànnee comme personnalité bind ci moom loolu dañ ko ciy sant euh, la ca toppaat mooy dafa bind ci moom ci façon boo xam ne dawuñ ko seetlu ci bind bindkat yi euh, dëgg la daf bind na ci Cheikh Mouhamadoul taxaa ci histoire am ci ay usulam Euh, ay origine maanaam ay origine am ay waajuram fa ñu jógee am na solo cosaanam bind ci fi mu am na solo waaye nag mu bind ci yu ëpp solo yooyu mooy ay jikkoom ak ak yitte ju kawe ju mu am te yitte ju jooju mu am tax mu agsi fi mu agsi xam nga yitte ci la moom la yonente bi sallallahu a wa sallam joxoon ndigal Mawlana al Abdul Xadim ci ne ko na ci yar na ci yar murid mu wane yittu ju kawe nga xam ne moom la Cheikh Mamadou am ba tax mu agsi tey fi mu agsi euh, ki dafa am yitte joo xam ne moo ëpp mooy ëpp jamono comme ni naan lahu himamun la muntahan li kibariha wa himmatuhu sughra ajallu min ad-dahri léegi wane na yitte jooju ci Cheikh Mamadou Mountakha kon loolu ci bataayaat lu am solo la maanaam façon mbindin wi am na solo waaye la ca toppaat nga xam ne moo ca ëppaat solo mooy deuxième partie bi ci livre bi mooy dafa def ay proposition yu am solo ci Tuubaa ak ci naka lañ ko war a gën a naka lañ war a gën a xalaatee ba mu nekk dëkk boo xam ne dana méngoog ni ma bëgg mooy dana nekk ak Tuubaa ci li mën a jàpp ci àdduna xam nga Tuubaa àjjana la waaye nag àjjana moom amul ci kaw suuf waaye nag dana may nekk àjjana ci kaw suuf ci li jàpp ni ci suuf comme bu suñu tubaab waxee ne wajal ilaahi maskani tuuba bi jayi xayri man abat loolu du nekk tuuba comme nga nekk àjjana waaye nag li mën a ne ci àdduna loolu nag mën nañoo góorgóorlu ba mu agsi ci len loolu def na ci ay proposition yu am solo loolee dañ ko ciy sant ngir ne dafa am jura maanaam dafa am ak ñeme ci euh, ci tarq maanaam tomb yooyu parce ñun ñu gën a bëri ci ñuy bind fii ñaare duñu am audacité ci bindu yu mel noonu wala wax ci seen xalaat tey mbir mi dañu il faut nit ñu joxe seeni xalaat ci yenn position yi buñ ci joxee seeni xalaat léegi ñu débattre ko buñ ko débattre buñ ko dee nangu nangu ko buñ ko dee rejeter rejeter ko buñ ko dee améliorer ñu améliorer ko mais dañoo war a joxe xalaat tey dëkk bi noonu la suñ tubaab bëggul mu nekk mu nekk dëkk bu ñuy xalaatee xam nga su dafa ñaanoon juróom ñaari ñaan ñaari bayit wajaalhu dëban maskana taallum lim ci teg wa mawdi al fikra waaw mawdi nanga ko mu nekk place bu ñuy xalaatee kon dafa war a nekk place bu ñuy xalaatee léegi nag moom ci bi bind am na audacité xalaat li nga xamee ni moom càmbar na ko ci dëkk bi jàpp ne lii luy sooxe la ak li nga xam ne càmbar na ko ci xilaafa gi jàpp ne luy sooxee la mu am audacité bind ci loolu moom la bind ki di por def soo leen léegi ñu bokk na xalaat ci loola léegi nag bi mu amee audacité bi tarq maanaam jeqi mawaadi yooyu mu mu proposé ay solution parce que nit ki néewuñ ko rek na wax dara te du indi ay solution léegi nag moom jën na indi ay solution solution yooyu mu indi nag yu ñu mën a débattre la léegi xool ba xam euh, fi jamono toll ndax maris na koo def wala mënuñ mënees ko koo def wala boog dafay nekk des solution yoo xam dafay nekk de court terme de moyen terme de long terme maanaam adal madal qarib mad al mutawassit ala al mad al baid naka lañ koy réaliser mais li am solo mooy proposer na loo xam ne nii jàpp naa ne bu buñ ko jëlee en compte dana am solo pour njëkkante waxtu wi am na yu mu ci marqué lool bu njëkk bi mooy wax gi wax ne xilaafa gi wala tariqa bi dafa war a am organe de presse bu officiel waaw loolu lu mënta ñàkk la ci fi tariqa bi toll loolu loolu yoon la tariqa bu toll ne ak tariqa al muridiyya amul organe de presse bu officiel du journal du télé du rajo nga xam ne à chaque fois léegi bu ñuy wax ci yeneen télé yi ci la ñuy jaar wala yu ñu demee war nañoo am léegi organe de presse bu officiel boo xam ne nii lépp lu ñuy wax fa lañ koy waxee organe boobu lépp lu fa jógee ñoo xam ne léegi lii lu officiel la lu engagé tarixa bi la looy lu mënta ñàkk la yaakaar naa jàpp naa ne lu waroon a am bu yàgg-yàgg la rawatina nag jamono ji nga xam ne dañoo toll ci euh, ci technologie de des médias ci lañ toll nga xam nekk nii moom média dafa man lu baree bari mën a defar lu bari mën a yàq lu bari comme ne bu ñu tollee ci boo xam ne média dafa mën defar lu bari lu bari du yoon tariqa bi di ko négliger te malgré dana am na ay ay ay ay euh, ay effort individuel mais yooyu yëpp ay effort individuel la ay ay am na fi Lamp TV Al Mouridiya TV As-Samadiya TV euh, Rafa TV Khadimiya yooyu yëpp ay organe la mais yooyu yëpp c'est individuel ñooñu seen seeni boroom du ma ne sax euh, ay euh, ay média yuy def commerce la duñ wax loolu xidma la ñuy def waaye nag c'est individuel. léegi waroon naa am nag tariqa bi média wu euh, organe de presse boppam boo xam ne dafay nekk lu officiel loolu dana ko dana tax mu am ci ñaar mooy yi mu bëgg jubbanti ci doxalin yi mu jubbanti ko mooy bu njëkk bi. naara ba dana ci mën a véhiculer njàngale mi bëgg a jàngale jaare ko ci nouvelle technologie boobu loolu lu am solo la kon jàpp naa ne loolu bi nga ko tarxoo lu am solo la loo xam ne nii jàpp naa ne ñi nga xam ne ñooy ñooy masul ñooy yi maanaam ñooy responsable yi war na nañu ko tenir en compte dox jëm ci loolu xool naka lañ koy amale parce que nag ñi nga xamee ne am nañ dayoo ñëpp ci àdduna bi am nañu mel noonu. mën mm. na ma del exemple bu xaw a nuroo ak ñun tuuti donte wute nañ mooy mm. Khamenei yi ca Iran Ali Khamenei yi nga xam ne moom mooy la mooy guide suprême bu Iran. Mm. ab sëriñ da booy kaalaw comme ñu fii ni ñuy nekk sëriñ di kaalaw donte moom état la jiite waaye moom am na organe boo xam ne nii moom euh, ca lay waxee lam bëgg a wax lam bëgg a jubbanti fa la koy jubbantee kon ñun war nañoo mën naa roy lu mel noonu def lu mel noonu boobu mooy bu njëkk bi ma ci bëgg a ma ci njëkk a seetlu euh, bi wax na ci problématique ndox mi ndox mi moom du problème problématique la maanaam nekkutul muskila mais moodila la wax na ci lu baree bari euh, wax ci tamit ak juraa taloo tamit li bi Sëriñ Tuubaa bind ma maske ni salli min al fujjaari wa am na ala al ahli bi ma un jaar yi bayit bi dafay signifier ci ne li fekk fujjaar ñu ngi fay nekk maa jaar du fi mën a am léegi il faut fujjaar yi jóge fi maa jaar man fay am nag il faut que tariixa bi tàmm di defee def iqaab maanaam di punir ñi nga xamee ne dañoo dañoo def ay fautes mais ku def faute ñu bàyyi la fa loola du dama du jëmale du jëmale mbir kanam loolu tarq na ko mu nekk lu am solo loo xam ne am na ci audacité ba ca toppaat te muy bu amaat solo boo xam ne bëgg naa cee ñëw parce que yitteel na ma lool euh, man bind naa ci am na ñeneen ñu ci bind mooy maire yu Touba commune u commune u Touba vraiment lim ci bind lu am solo la xam sa jaxate bindoon na ci. al idara al mahalli bi Touba taxaddiyaat wa muqtadiyaatul him mooy genre mel noona man am na lu ma ci jotoon bind moom mii tamit am na lu mu ci bindaat li mu wax lépp mooy même euh, point yi nga xamee ni ñëpp gis nañ ne lii doxut léegi nag mbir buñ ko gisee nii doxut nañuy fexe mu dox dañuy fexe mu ndox parce que ci àdduna lañ nekk àdduna joo xam ne course la dañuy rawante mënuñoo fondé benn ville moo am benn dëkk mu nekkoon ab village nga xam ne la ko taxoon a jóg mooy yar ay nit ñu sori ay ville ñu dem ba mujj bi euh, village boobu nekk deuxième ville du Sénégal su boobaa faw ñu soppi ko maanaam ànd ak jamono xam nga waykat ba dafa wax ne laqad zaamat anni taxayartu baadaha wa man dallazi yaazu laa yataxayaru kan moo dul changé changement dafay am même Mawlana al Abdul Qadim da doon changé méttitu tarbiyaam sëñ bi ni mu doon yaree ci Tuubaa bu njëkk ga bokkut ak ni mu doon yaree bi mu nekkee gànnaar bokkut ak ni mu doon yaree bi mu nekkee Ceyin Jolof bokkut ak ni mu doon bi mu nekkee Jurbel kon changement yooyu dafa war di am léegi nag mënuñu euh, dem ba ci jamono fii jamono toll ak li murid yi jàng ci xam-xam moom benn na ci benn moom benn na ci génn na jàngi Maroc dem France jàngi ak ñeneen ñu bokkut ak moom ñu continuer benn ummi dañu jiite noonu la ko waxee inna baladi inna baladiyata madinati tuuba yajibu iaadati nadar fiha ñëpp a ci d' accord ndaxte tuuba hiya thani akbar madina fi sénégal baada al asima léegi kayfa yuqal an yataraasaha ummi loolu lii mooy constat léegi nag yii il faut ñu ñeme koo wax bu ñu bëggee jëm ci kanam développement du am bu fekkee ni ñi xoolante ci ay bët di waxante yi nga xamee ne moom mooy tax mbir mu jëm kanam euh, européens yi ak américains yi man Occident de manière générale li tax ñu développé mooy nit dañuy ñëw teg ko fenn ne ko defal su mënul ñu dàq ko teg fa kaneen moo tax benn waaye danañ leen yéen lan moo tax ngeen avancé mu ne ko yàgg juum yàgg juum moo tax ñu développé parce que nit ñu teg ñëw teg nit mu juum ñoo xam ne kon mënut ñu jël ko ñun da leen juumul ba léegi ñu benn koo juum mais nag lii moom problème problématique la boo xam ne war naa taxaw ci jéem koo xàll léegi nag moom proposé na lu am solo. mooy naka la Touba di nekk statut spécial ndax dana yomb ndax du yomb c'est à débattre waaye lu am solo mooy lu ñu war a posé la ngir fas yéene Touba bu fekkee ne ne fa nekk statut spécial mu xaw a gën a autonomie tuuti ngir mu mën a am ay partenaires ci biti yoo xam ne danañ mën a ñëw ànd ak waa Touba liggéey bu fekkee nag statut spécial boobu mënu koo am ñoo xam ne kon léegi ñun ci gouvernement Sénégal ci lañ bokk su boobaa nag li ñu war a séddu li ñu war a en tant que deuxième ville du pays ñu sédduñu ko waaye nag yenewul maanaa dëkk bu toll ne amul amuli pont amul feu rouge pour nga problème moom ndox bu tawee ak yeneen ak yeneen loolee moom lu ñu war a régler la xam naa kon problème waxtu yi mooy tax waaye li am solo mooy ñoo ngi dénk ñëpp ne nañ ko liir parce que li baax ci bind mooy fexe ba indi lu bees moom na fexe na ba indi lu bees mu nekk ay afkaar yoo xam ne nii afkaar jariya la afkaar sawriya la loolu des ko ci sant parce que loolu mooy la am solo boo deful rek li nga xam ne moom lañ tàmmoon fii waaw lépp baax na moom koy macha allah tabarkalla loolu jëmalewul mbir kanam kon naa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin kon ñi ngi sant bu baax eh, sëñ Chouaïbou Mbacke ak sëñ Moutada ci kàddu yi am solo yooyu waaye ñu ngi sant suñu mbokk taalib yi nga xam si ñoom lañ fekkee jotaay bi euh, wax dëgg yàlla ñu bari lool bañu bañ a lim waaye ñu nekk ay nitu xam-xam ñu nekk jàmbaar ci yoonu islaam rawat na yow Cheikh Khadim euh, di sant bu baax nag jëmm ji nga xam si moo ñu fi dajale muy docteur Ahmadou Mokhtar Sylla euh, mën nag xëy na dama koy sant sama cant bu bopp ndax yàlla dafa def nii ba nekkee ci téere bi ci version française bi man maa ngi jot tapiscri bi le 7 novembre 2023 pare ci téere bi le 2 août maanaam téere bi yor naa ko fukki weer daanaka daanaka at daanaka lu jege at yor naa ko téere bi ñu ciy liggéey maak moom yàlla def euh, ñu ciy def ay proposition waaye mu defal ma ci taw feex ndax dañu ma téere bi yow moom carte blanche laa ci defal lu la neex dindi lu la neex def ci euh, benn bi tamit euh, mu jagleel ma ba téere bi nag min ma avant propos bi yaa koy bind version française bi kon loolu mun ñoo toog ci jotaay bi te duñ ko seede di ko ci cant ndax wax dëgg yàlla xam-xam yeeg at yeeg expérience yëpp matewu ko waaye loolu lépp dañoo dayloo ànd ak ñun liggéey bi ci sant bu baax nag euh, xam naa lu ci bëree bëri daanaka euh, lu ma waajoon wax la fekk na sëñ Cheikh bi ak sëñ Amadou sëñ Moussa daanaka leeral nañ ko waaye man damay faral di wax ni téere bi day mel ni xëy na lu ci bëree bëri xëy na nag te loolu lu war la ndax euh, sëñ Mountakha moom daanaka moom mën naa ni moo fi nekkul Cheikhul Khadim tey ku ne xam ne liggéey bi mu def ci lislaam waaye man damaa jàpp ni taxawaay bi ci sëñ Muntaxa am ndax Ahmadou Mokhtar ba mu demee ci préambule bi mu ngi koy leeral ba mu demee ci sëñ bi dana ko maam man damaa am yéene bind ci yow waaye bëgg ma mu doon téere bu ñuy barkeeloo sëñ bi ni ko waa góor loolu day doon soññee ci man boole ko sëñ Abdou Latif kon damaa jàpp ni aspect bi gën a am solo ci livre bi mooy deuxième partie bi man loolu daanaka tamit ba may liggéey ci téere bi fa laa gën a yàgg eh, ndax dafa nekk lu am solo loo xam si sëñ soin bi wax na ko muy maanaam audace bi Ahmadou Makhtar si la am ci yi nga xam si dañ ko daan nguñu nguñumee ci ruq yeeg yooyu moom da koo ñëw fësal ko xam naa eh, sëñ soin bi am na ci ay exemple yu mu indi waaye man du ñàkk danaa indi yeneen exemple yoo xam si day tax ñu xam dëgg-dëgg téere bi njariñ li mu am ak lan moo tax waatu Touba war koo liir ñi nga xam si ñoom la defal proposition war ko liir waaye képp koo xam si da ngay def réflexion di gësu ci yoonu murit nga liir ko ndax dafa nekk lu ñu tuddee approche critico euh, euh, approche euh, critique constructive maanaam ñëwul di di critiquer rek critiquer waaye dafay lu mu wax day indi solution maanaam ñëwul di di wax rek waaye lu mu wax danaan la lii ma wax lii jàpp naa ne moom mooy solution xam naa ngir njëkkante waxtu wi ndax man tey sama yéene moo doon def euh, présentation de l'ouvrage maanaam nu ngi ko bindee chapitre yeeg titre yeeg yooyu yëpp waaye lu ci baree bari mën naa ni sëñ Souhaïbou bu indi ko ak sëñ mo euh, kii waaye téere bi ñaari bay di rek la tënku téere bi moom bu naa lan mooy téere bi tënk ko ci ñaari bay bi zurriyatan tayyibatan tujadilu nahjanal Mustafa tajtahidu loolu mooy première partie bi waaye ni mu ko defee mooy bindul ci sëñ Muntaxa ngir maanaam euh, de maanaam des approches laudatives wala tagg ak demee noonu waaye dafa bind ci jëmmi sëñ Muntaxa ana naka kii la murid di war a royee ci moom wala képp koo xam si giddi nga wala leader nga nga nan ngay royee ci moom moo xam nag ngay dox ci zaahir ak ci baatin wala ngay dox tamit ci àdduna ak euh, dans le milieu spirituel maam ci noonu la bindee ba mu dikkee deuxième bi nag moom mooy bi nga xam si sëñ Soin bi wax na ko wajal ilaahi maskani Touba abat monsieur bi jaay xel a abat muy Touba dañoo tàmm di wax ni euh, te loolu moo am sëñ suñu borom sëñ Touba lim ñaan suñu borom ñaan na ko te dañ ko defal waaye dafa am yoo xam ne wax dëgg yàlla ay jëf ñoom ñoo koy ñoo koy réaliser moom nag jëf yooyu lay analyser ana naka lan mën a fexe ba lii nii dugg ci ñaanu Cheikhul Khadim googu wala boog nan lañ mën a def ba ñaan googu suñu borom def mu sottee suñu jëm euh, sëñ Sonia bi wax na ko maanaam partie bi ma ëppal solo man moom mooy deuxième partie bi mooy la réfle les réflexions sur la gestion des affaires publiques à Touba wax na groupe de presse pour. pour pour yoonu murit bi waaye ci presse boobu laay dikkaat dafa am lu am solo lu mu wax ci màggal tubaa gi lii laaj na nag boo xam si xëy na dana concerné ñun ñëpp ñoom sañ Assane mi caméra ak ñun ñëpp ñu ngi ci maanaam ndax màggal Tuubaa comité d'organisation bi ñoom ñoo soxla dem ci presse bi wala su presse bi moo soxla ñëw ci comité d'organisation bi loolu moom ab laaj la ndax moom li mu seetlu mooy li mu yoonu murit di dépenser ci presse màggal Tuubaa kenn xamul lu mu toll. presse bi ñaata lay gañe ci màggal Touba loolu xalaat la ndax yoon murit ñoo war a jug dem ci presse màgg gi wala ñu màggal gi ñoom ñoom ñi nga xam si ñoom ñooy bénéficiaires yi ndax liñ ci gañe ci ay publicité ci seen d'antenne seen seen nombre de vues yi yokk yooyu yëpp nga xam dañ leen koy fay ba pare yoonu murit yëkkatiwaat ci gafagaam moom moom di dépenser lu baree bari ci presse bi loolu tamit moom xalaat la boo xam si daf ko daf ko daf koo wax ñaareel bi mooy. wax na ci li jëm ci wàllum naka la ñuy mën a améliorer organisation bi am mbir biir yi mooy yi nga xam si euh, ci ci ci ci Almeria lim ci njëkk a wax dani moom jàpp na ni Bàqiya dafa war a am parking ndax ñi nga xam si dañuy denc bu ñu dikkee foofu ni muy mel ci oto ak ni muy jaxasoo mënees nañ ko mën a organiser ba def ba parking boo xam si day nekk lu ñu organiser ci bunt bi. beneen bi ci des tamit moom mooy dugg bi nga xam si euh, lu oto yi dugg ci biir donte am na benn porte porte entrée moom ànd na ci waaye li nga xam si moom moo gën a am solo mooy dañoo war a fexe ba képp koo xam si dafa dugg ci biir buy génnaat mu bañ a ñu bañ a génnaat ci porte centrale bi nga xam si foofu noonu mën nga faa yàgg ndax nit ñu bari mu ni waras nañoo mën a fexe ba ñeenti xible yëpp ñu ubbil kee porte nga xam si donte benn porte centrale la yam mais ku pare bu la neexee mën ngaa génnee sens bu nekk nga xam si tey am embouteillage du am ci bunt bi am na tamit lu am solo loo xam si laaj na ko ndax ku ne xam ne ni boo fa yóbbee di denc dana laaj ki ñi denc moom euh, ban kat mooy sëriñam ak euh, yooyu yëpp moom laaj na ndax denc néew yooyu jar na loolu ci ñoo xam si ñoom ñëpp Cheikh Khadim moom mooy seen moom mooy seen <laughs> moom mooy seen yooyu wax na ko maanaam sujet bi da ci yoo xam si lu tabu loo maanaam tabu sax waaye moom da ko da ko da see dut baaraam ñaareel bi tamit moom mooy yi nga xam si dañ koy réserver mooy da ngay dem ci ay ay ay barab fekk yoo xam si dañ koy réserver tëj ko mu ne lool tamit jàpp na lu war a dañ la beneen bi mooy dafa ñëw waa kay sama wax na ko sànq muy wàllu maire bi waaye benn xalaat bi ci Ahmadou Makhtar Sylla am bokk na ci mooy ndax Touba benn maire la war a am ay laaj la ndax Touba ni mu toll. benn maire dong la war a am moom nag dafa jàpp ni maire bi dafa war a yeneen comité yoo xam dañ ko décentraliser nga xam si day polariser yeneen yeneen yeneen yeneen yeneen secteurs yi nga xam si du du jar ñoom ñuy jóge fañ jóge ñëw ba ci maire central bi dafa lijjanti yenn papier administratif bi yooyu tamit ay xalaat la yu yees loo xam si xëy na daanaka comme ni ko jëriñ di signalé waxtu moo xaw a xat waaw waaye téere bi daal moom téere bu am solo boo xam si mbooleem liy yëngu ndax am na ay observation bu ñu defal waa Rawdu Rayaahiin mu xaddamatu xidma comité d'organisation màggal gi maire beeg wàllum ndox meeg yooyu yëpp daanaka jàpp naa ni képp koo xam si wax dëgg yàlla am solo gi moom mooy defu ko rek ngir ñëw di critiquer waaye critique boo xam si de li mu ci jullu moom mooy defar kon loolu faw ñu xam ko xam naa waxtu bi moo xat rek dañuy wàccee foofu kàddu waaye du xam ne daal téere bu am solo boo xam si jàpp naa ni ku ne war na ko mën a li mën a liir jërëjëf sëñ Moutalla ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziar xam naa sax kàddu yi sëñ Maxtaar mi taxawal jataay bi da ko sàkkoon ci ñun rek joxe nañ ngànt ba sonn nag waaye mu forcé rek ne faaw ñu yëkkati kàddu kon xëy na dañ tënk rek ngir lu mënta ñàkk te kàddu yi daanaka day jëm ci ci bind téere bi muy docteur Maxtaar Sylla yàlla dogal na lu bëri ci sunu njàng ñoo ko ànd daanaka lu jege juróom yoo xam ne taqali ko xam naa ci moom lu bare bëri loo xam ne jàpp naa ne mën naa ko seere waaw ndax moom yàlla dogal na ñoo amandoo bag fii ci Touba ci ndaam eh, gannaaw loolu ñoo bokkandoo dem Maroc sëñ Mountakha mii fi nekk moo ñu wutal bourse man ak moom ak ñeneen am na ci mbooloo mi sax ñoo xam ne maa ngi leen fi seen ñoo xam ne ñoo demandoo jàngi te sëñ Mountakha moo ñu yóbbu loolu defe naa mi ngi woon diggante 2009 2010 bi ñu demee Maroc it maag moom ñoo bokkoon fu ñu nekk ci tàmbali bi donte ginnaaw bi taxalikoo nañ moom mu dem fees man ma dem Tétouan gannaaw bi ñu amee licence it ñëwaat nañ bokkaat même dëkk muy Rabat di jàng ba ñu amee master moom mu dem France gannaaw ba ab biir fekk naa ko fa ñu nekkaat fa bi ñëwaatee Maroc it fa lañ amee doctorat maag moom gannaaw yàlla dogalaat it. ba jamono ji ñoo bokk fu ñu liggéeyee maanaam fay fa muy liggéey ak fa ma nekk ñoo taxaloo kon yàlla ñu boole euh, maanaam ànd bu yàgg daal boo xam ne mën naa ko sere muy koo xam ne ku bëgg xam-xam la ku ku am ak njub la xam-xam bi nag téere bi seere na ko xam naa loolu moom duma ci sori ndax ku jàng téere bi nga xam ba xam moom am na xam-xam wala déet waaye téere bi euh, joxoon na ma ko bi mu ko bindee ci arab def naa boo war na man at ma jàng ko am ci yu ma ko jox ay seetlu waaye ci ëpp solo xëy nañ ci formule waaye du ci fond bi gannaaw bi génnee génnee ci jamono yi joxaan na ma ko ma liiraat ko waaye gis naa ne téere bu am solo la boo xam ne maa ngi ñaax jàngkat yi ñu dem wuti ko ndax lan ci ki ko bind day ko am solo ku mat a bind waaye it proposition yi nga xam ne joxe na ko ci dëkk bi comme ni ko mbokk yi jiitu waxee jàpp naa ne dëgg la ay ay ay critique la waaye critique la yoo xam ne day defar ndax moom ku ko xam xam na léppam ci yoon wi la kon lépp lu mu ciy wax jàpp naa ne day wax ngir defar mais du leneen kon ñi koy jàng nañ ko xamee noonu xam ne moom mi ko wax ci dëkk bi la bokk léppam ci dëkk bi la ci yoon wi la léegi nag xëy nag nit ki moom ba xasee bind ba noppi moom lam bind moomatu ko léegi kon ñi nga xam ne ñooy ñooy lii téere bi am nañ am nañ droit xool lañ cey jël ak lañ cey bàyyi ndax xalaat moom noonu la boo xasee xalaat boo xasee génn rek ci yow moomatoo ko li fekk mi ci yow moom bu la neexee yaa ko moom bu la neexee téye waaye saa yu génn nag moom yaa ngi ñëpp ci am kon kenn ku ne am na ci am na ci xalaat euh, te jàpp naa ne xalaat yëpp it mooy luy tax rek dëkk bu Sëriñ bi jëm kanam gis naa wax na ci lu jëm ci Rawdu Rayaahiin te lam ci wax yëpp gis naa ne luy luy tax mu gën a jëm kanam la xëy na nag léegi-léegi am na ci yoo xam ne ci d'accord moom waaw loolu moom lu normal la daal ndax nit ki lu mu nekk sa xarit lu ngeen mën a ànd xalaat moo xalaat la rek léeg-léeg ngeen dëppoo ci léeg-léeg ngeen bañ cee dëppoo rawatina moom nag euh, parfois dañuy xaw a am ay ay kii waaye loolu normal la ko xam diggante waa Ndine wa Daaru Xudus moom loolu loolu jaaxal waa Ndine waa Ndine wa Daaru Xudus am na yoo xam ne dañ dañ ci dañ ci dañ ci kalante loolu moo tax léeg-léeg moo tooñ waaye loolu teewul ñu mën a ànd ba tey xam naa sëñ jili moom moom mi mi mi jàkkaarloog man kon daal la ci gàttal téere bi gis naa ci lu am solo loo xam ne ci wàllum scientifique lu mat a bàyyi xel la mooy lépp lu muy tudd day fexe ba di ko delloo ci ay delluwaay lépp lu mu wax bu amee delluwaay dana ko delloo ci delluwaay bi loolu am solo la ci mbind kon lu scientifique loo xam ne teg na ko ci xam-xam beneen bi mooy euh, ni ma ko waxee léegi du zaat yi la jëfandikoo mooy day critiqué waaye li muy critiqué da cay jublu luy luy defar waaye jublu ci loo xam ne euh, leneen la kon ñi ngi jàpp ne daal téere la boo xam ne xam-xam la tegu donte ki ko bind am na ci yoo xam ne mën nañ cee d'accord ak moom mën nañ ci bañ a moom te loolu jaadu la kon ñi ngi ñu koy sant baax di ko ndokkeel di ko ñaax it mu bañ a yem ci benn téere bi ndax jàpp naa ne moom yàlla may na ko xel mu neex te it xam-xam mate na kon war naa gën a farluwaat ci génn yeneen téere yoo xam ne yu mel nii la moo xam ci sëñ Muntaxa la bii moom xëy na sëñ Muntaxa la waaye mën naa gën a farluwaat bi def yoo xam ne day jëm ci yoonu murit ak ci lislaam ji yëpp ndax xam-xam may na ko te it ak njàmbaaram may na ko kon ci ci jeexal bi maa ngi santaat mboolem mi nga xam ne ñoo fi teew di leen gën a soññ ñu yër téere bi ndax xay na boo yemee ci liy wax fii rek mën ngaa jàpp ne moom day day wax li wax noonu rek waaye li mu wax noonu ne am na fu ko fu ko wér am na fu ko wér jàpp naa ne léegi nag fa mu ko wér mën na ci dëppoo mën na ci bañ a dëppoo loolu beneen affaire la kon xam naa sëñ xaar yi nga xam ne moo war a jël li ci des dana ko mottali kàddu yi daa mënutoon a ñàkk rek muy kàddu yu seere yoo xam ne dama koy seere jëmm ji nga xam ne moo muy jàmbaar di koo xam ne xam-xam na ko ñor ndax koo xam ne mboolee fu ñu jaar ci ay diplôme am na ko loolu loolu rek mën na seere kon bu jógee bind téere bi war na koo bind ndax am na xam-xam bu tax mën na ko bind kon jàpp naa la ci des moom mooy ñu yër ko man cee jariñu te noonu lay soññee sama moroom jànkat yëpp ñu fexe ba bind ndax mbokk mi wax na ko léegi bind daa am solo ndax xam-xam lu mu bari bari boo fi jógee jeex na kon war ngaa fexe ba boo fi jugee bàyyi fi loo xam ne day jëriñ ñi ngi fi bàyyi loolu mooy róolu borom xam-xam ku ñuy tuddee borom xam-xam rek war ngaa fexe ba bind lu mu néew néew benn téere loo xam ne mbooloo mi dañ ko mën a jëriñoo ba fa bàyyi ko kon ñu ngi gàttal foofu kàddu yi wasalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum Seex Murtadaa ñu ngi lay sant di ziare Serigne Cheikhouna sama kilifa yi fi nekk yëpp euh, tàmbalee ko ci kilifa jataay bi di ko ziare euh, di wax ne wax dana jafe ci man lool fii ndax digg borom yi xam ak say sang say kilifa rek jël fa kàddu dana xaw a diis xam naa bu du dutoon nag ni nga ma présenté tudd nga tudd sëñ bi du ma du ma ñemee wax ci wet googu waaye dana dinaa indaale soññ bu jóge ci moom goo xam ne du kàddu yu ma wax li ma wax leen ko du lu mu bind ni ma wax leen ko waaye day lu mu jëf ma gis ko tam ay tamit ak soññ ci borom xam-xam yépp mooy téere bii tey la ma xamal ne téere bi am na mooy guddi waxtu woo xam ne daa yendoo liggéey ci taalibe yi ak mbokk yi ba guddi ba waxtu bi ñu jàpp ne war na koo fatu di ko dallu mu soxla ma ma ñëw fekk ko mu ne ci téere bii nga xam ne tënki biir yépp ci moom laa ko xamee mu yéem ni nga xam ne noonu la docteur Cheikh Muxtaar tërale téere bi mu ne moom de bàyyiwul dara di ma ko limal benn par benn bu waxee dara ree ni ma tudd na nangam ci dëkk bi tudd na commune beeg lu mu lépp sëñ bi ci boppam moo ma ko toll ci làmmiñam boobu gisaguma téere bi kon loolu li tax ma ne bu ma amee kàddu yu ma sañ a indi ndax samay kilifaa fi nekk kàddu yu soñ yooyu lay doon ci sëñ bi ne yéen way way xam yi yéen way bind yi yéen bindkat yeeg yéen borom xam-xam yi xam leen ne sëñ bi séenu géeg leen fii la toll am na ci ko newoon ci émission Hizbut ci asa ci almuridiya di waxtaan ba mu làgg sëñ bi wooloo ma di ma laaj kii wax nii kana te ñeent wala juróom lañ mën ma am ko ma ca laaj ba ma wooyee kenn ci borom xam mi laaj ko ko xam naa mi ngi ma ne ma sëñ bi ma ko ngi nii jàkkaarloog émission di ko seetaan di leen di leen ma kon ngeen xam ne yéenay ay wéttalam yéenay ay xaritam yéenay ay am di jàmmam te bàggee gi man baxel moom du ma ko wax ndax yéen ma ko gën a xam kon daal ba may yóbbal ba mën a indi boobu rek la muy ak soññ kon ci ci yéen borom xam-xam yi ak ba ci nun ñi amul xam-xam téere bi duma dugg ci biir lool waaye man commentaire bi may def day day day général rek ma am amatan rek ci xam-xam ak bind bi sëñ Cheikh Fatma bindee téere boobu mu defoon ci xarala yi yi nga xam ne day mel ne li ñuy wax band dessinée di wax ci sëriñ bi am ñu ko gisewul na mu na mu na mu war a taxawee ma ma ne ko njàngale moom sëñ bi nu nit ñi gën a mën a dégg yoon wu ñu mën a gën a dégg rek yoon woow mooy aw yoonam waaye yoonu cosaan yi ngeen ci jaar nag moom da ci yaraw ndax dama daan wax ne taarixu jamono jun toll day muy taarix histoire présente ñi ngi koy soppi maanaam ñi ngi koy falsifié ci kaw mbind mu yees te ma waxee loolu murid yee bindut borom xam-xam yi tuwaay yi binduñ loolu ni ma ngi koy tënk ci ñaanu sëñ bi rek ndax lu mu ñaan nangu na wa maskana maskana ta'allumi wa mawdi'al fikrati wa tafahum ta'allum moom booba tey mosu fee jóg waaye fikra nag daan dañ ko dañ ko gannaawaloon fikra moo desoon wala boog ñu ngi koy def ci néeg yi waaye bokkuñu ko bokkuñu ko bitti bi yéen borom xam nag man bokkuma ci yéen laay wax fikra moo desoon tamit na ne alhamdulilah mi ngi tàmbalee mi ngi tàmbalee ñëw te fikra moomu fikra ba noppi de boo ko defee ba noppi nga bind ko moo tax ñu koy wax ndax damay wax ne euh, loolu ci téere bi laa koy jële moom ngir wax dëggal li nga xam ne al oustaz docteur sëñ Maxtaar wax na ko ci téere bi ni mu tudde sëñ bi l'homme des projet et des sciences xalifa des projet et des sciences projet mooy ay sémb science mooy xam-xam ba ñëwee ba tey dafay sémb te ko seet bi sémbam yëpp ci xam-xam la jëm ndax xam na ne lu mënoon a sémb lu mën a doon rek fam yam moom mën na faa yam mën na faa weesu ci kaw keneen nu mu ko juboo waaye projet xam-xam moom sémbut xam-xam boo xasee sémb ba xam-xam ñor nit ñi bañ tàmbali koo dund la ci des mën ngaa bàyyi mu dem xam-xam bàyyi indi la ci des sémb yi kon defe naa ne sémbi xam-xam yi mu sémb te daara ju mag ji taxaw su symbolisé ko hmm. waaye daara ju mag ji mën naa ne daanaka duma ne moo ci gën a tuuti waaye mën naa ne itam moo ci gën a tuuti hmm. ndax soññ gi muy soññi borom xam-xam yi hmm. safoo gi mu leen safoo fu mu toll di leen kañ di leen jox ndam di leen sargal di leen teral loolu moo gën a moo gën a kawe sax daraja euh, daara ja ndax bu ngeen ko seetloo dafa am lu ñuy wooyee effervescence wala sëñ Abdou Khadre mu koy bouillonnement wala xam noo koy wooyee xam nga nag gars yi ci majaale daara ji ba nag jàng li nga xam xaw ma xaaj bi maasam gii <laughs> euh, loolu bu yoon maa boobu am bu yoon maa xam-xam nga xam ne daa mel ne cin luy baax ba cóolu liy génn ci wet yi loolu xam-xam moo moo xew Tuubaa nga xam ne ku ne man nga cee tedd boo ko jàngee man nga cee tedd mën nga cee am daraja man nga cee jariñ man nga cee jëriñee loolooy tax xam-xam yokku ndax sama maas gii li tax seenum jàng gàtt jamono yooyu dañoo teel wuti njël ne bunt yëpp bi ko na ngeen xam lu ne waaye jamono yi wuti njël daa xew ndax booba njaboot gépp ñëpp mënuñoo moos ne di jàng di wéy rek waaye léegi nag jàng dana la teral dana la sagal dana la fas liggéey sa borom te loolu yaakaar naa sémb yooyu mu sémb ak sémb njaboot suñ tubaab gi ñuy sémb ak euh, dundal gi ñuy dundal xam-xam loolu mooy indi loolu waaye la ci suñu warugar la ci seen ñu delloo ko ko mooy ñu bind nag xamle sëñ bi mooy kan xam sëñ bi mooy kan nag téere bi ci la bokk ak pàcc yi bu ma waxee bi nag sëñ bi laa wax bu ma xasee wax sëñ bi rek ñëpp banqaas yi soq sëñ bi yëpp laa wax ku nekk nga gën a xam kilifa ga nga gën a xam nga xam ne boo ko xamaloon mbooloo mi tey ñu defe ne kooku rek la sëñ tubaa am ku ne na nga xam ne kooka noonu la ñu xam ne sëñ tubaa ndax foo ci bokk rek boo gëstoo ba xam da nga gis ñu fees dell ak jikko yu rafet ak doxeen yu rafet ak leadership ak yu mel noonu yoo xam ne bu ko nit ñi xamoon tey eh, ñëpp way mu taalibe sëñ tubaa la ñu doon moo tax sax maa ngi ci profité waale ndax eh, loolu actualité la ndax téere bi li ma ci gën a ñor am na ku tudd léegi tan sëñ Bàmba may na audace xam-xam day ànd ak aw fit ndax da xam ne li ngay wax bu ci nit àndee dëgg la bu ci nit àndut dëgg la wala boo gëm-gëm la boo xam ne teg nga ko ci ak dëgg teg nga ko ci maanaam ak gëstu loola bu ñu ci àndee alhamdulilah bu ñu ci àndut bu la leeree na yow sa damir moo tax nga wax ko sa laa tax nga wax ko am na foo ko teg day daal di dem loolu nag ñu ci ñu ciy wattandiku critiquer borom xam-xam yi bind ndax nit dana bind ci xaal ci tolluwaay dana bind ci xaal ci tolluwaay weesu tolluwaayam tolluwaat bindaat weesu tolluwaayam tolluwaat xalaat te bu dee ci yoonu lislaam wala muy ci yoonu Sëñ yi bi defe naa bu du toon loolu nun ñëpp kon tey dañuy àtte suñu maam yi ci leneen ndax nun ñëpp defe naa ci tuubeen lañ jóge ndax lislaam njëkku fi yoon wi itam ñëpp ci leneen lañu nekkoon ndax yoon wi njëkku fi kon koo ci xam ne ni am na sa démb loo xam ne waxoon nga ko mbaa nga bindoon ko te dëppawut ak li li li am solo li am solo tey mooy ñu seet sa kaddu yi tey ak sa sa jéegooy tey sa doxinu tey rek ba xam lu mu méngool bu méngoog la la la la yàlla rek ñu defaral la la nga weesu démb ba mu ba méngoo sa tey rek doy na waaw bind bindkat moom faw mu critique ànd ndax da ca ànd wala tegtal ya nga nga nungu wala delluwaay nga nungu ko wala nga gàntal ko rek waaye la am solo mooy li mu wax lépp mu jële ko ci tegtal ak delluwaay ak ak gëm-gëmam ak xam-xamam ca xaal ba mu toll jamono yooyu loolu defe naa lu ci am solo la te dafa feeñ ci téere bi euh, bari na ci ay critique yoo xam ne critique dëgg la ci li ñu woyee système bu doon si yoon sañ naa ko tudde système système bi yoon wi doxee loo xam ne critique la waaye ni ko sëñ bi waxee léegi critique bu positif la ngir wax ngir defar ndax nit boo ko joxoñalee fa ab góomam nekk rek dimbali nga ko ci faj ma kon loolu defe naa ne lu am solo lu ma jàpp ci téere bi la eh, te te daal alhamdulilah xam naa daal waxi ku xamul comme xam-xam moom jërul guddal kon maa ngi sant bu baax di am mbégte ci téere bi di wax ne daal mbind mi moom nan ci soññ soññ suñu bopp waaye borom xam-xam yi gën cee soññ ci bind ndax ngeen xam ne kat lu ngeen bindut gone yiy judd ci at mii di war a gëstu feeg ñaar fukki at ci kanam la ñu fekk rek la ñuy bind waaw ci delluwaay ay delluwaay yi ñuy bind nag lu delluwaay wax rek ñoom moom la ñuy wax asalaamaaleykum wa rahmatullah di sant Cheikhna Ahmadul Khadim bi yëkkati kàddu yi cant rek yoo xam ne euh, xaj na ni ñu ko bëgg a waxee sax wala ni ñu ko bëgg yaatale du ñu ko mën a tudde noonu ci suñu làmmiñ waaye fu cant yam daal moom sant nañ ci tàmbalee ci sant gi nag euh, Cheikh Mouhamadul Mountakha sëñ Mountakha moom euh, xam naa ne ñaare waxtu wu ñu amee jotaay mu wax ko ko ndax jëfam fi ko fi fi ñu yàlla jaarale ci xam-xam da koo jaarale ci loxoom daal ñuy sant yàlla ci loolu wax dëgg yàlla te it muy lu yàgg loo xam ne du tay kon ñu ngi koy sant bu baax di ko ñaanal suñ borom yokk aw fanam ba projet ak yéene yi mu am ci liggéey suñ tubaab bi yëpp mu mottali ko te ñu ànd ak moom yaakaar naa bi ñuy bisu màggal Daaru Xudoos bi loolu la mu wax ni ma li nga wax ci téere bi lépp yàlla na sotti te nu ànd ko man ak yow ma ne ko alhamdulilah kon yàlla yàlla def lu noonu waaye di tàmbalee cant gi sëñ Moustapha Bachir Diop mii nga xam ni moom moom ma njëkk bind ci sëriñ bi bind téere bu am solo lool ci leadership sëñ Mountakha euh, mu am solo lool sax di téere bu am solo lool nga xam ne ñaari téere yi kon mën nañoo nekk li tubaab bi wax complémentarité mën nañoo mottali leen te dal euh, moom it téere bu am solo la ñu ko recommandé ñëpp ñu wut ko suñu saabu si it nekk mbokkum mu murit boo xam ni dund ja tugal waaye daanaka doo ko doo ko xam sax ci jëmmam wala ci waxam mu nekk nit ku am solo euh, fi may tàmbalee ci cant gi nag mooy barab bii di daaray kaamil waa kër sëñ Moustapha Diatara ñu ngi leen sant bu baax ci yaatal gi ak dalal gi ak organisation bi am na solo lool yaakaar naa feneen fi ñu ko naroon defe furut fii coono yi mënoon naa gën a bari kon sëñ Bachir ak sëñ Ousseynou ak mbooleem ñu ko àndal ak sëñ Moustapha la ma sëñ ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaan suñu borom fay leen aw yiw waaye di sant Cheikh Mourtada Sylla mi nga xam ni suñu lépp la moom it mu yor kàddu gi yoroon mu rafet te nekkul sax lu mu waaj di sant ñi nga xam ne ñoo doon def intervention yi tàmbalee ko ci Serigne Chouaïbou bu Mbacke Ridis suñu ñu ngi koy sant bu baax leer na téere bi. liir bu bu ku ko dégg mu wax ne xam na téere bi wax dëgg yàlla def na ci liggéey bu am solo di sant Serigne Cheikhouna Mbacke bi nga xam ne moom daanaka du ma mën a wax ci moom ndax suñ borom moo ñu boole daal booleb suñ borom la man ak moom booleb suñ borom la la tàmbulee ca ni mu ko nettalee ba def bac ba ni ñu defee doctorat ba ci barab ñuy yëngoo sax su ma taxawee sama fenêtre bureau mu taxaw ci fenêtre bureau mën a waxtaan <laughs> loolu loolu loolu loolu booleeg suñ borom la loolu boo rek boroom borom la mu nekk nit ku baax koo xam ne wax dëgg yàlla bokk nañ bokk nañ ab lal ay at waaye werante sax mos a dox suñu diggante werante wala ay dikkale sax mos a dox suñu diggante kon moom borom jikko ju rafet la yàlla na ko yàlla sàmm di sant bu baax a baax presse bi aussi ñoom ñëpp wuy si nañ ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm ndax liggéey bi ñu def xam naa sëñ Bamba mi ngi koy junj maa ngi leen di laal ci livre bi waaye laaluma leen <laughs> ci kii bi waa organisation magal bi presse bi taxawaay boobu laay laal waaye laaluma presse en tant que tel kon yéen seen taxawaay mënut a ñàkk seen taxawaay mënut a ñàkk ci cant yooyu ci laay wéyal di sant sëriñ Abdou Samad mu sëriñ Sohaïb sëriñ Abdou Samad mu sëriñ Sohaïb bu sëñ Muntaxa daf maa woo woo ko ne ko wax wax wax ko wax bi yéen a xam ne waxee. tey it kawe bu mu ëpp ni ko man ak yow ak maxtaar ñoo bokk yéene ci dëkk bi dama bëgg ngeen ànd te bu ngeen àndee di ngeen mën a sottal lu bari ci dëkk bi dama wax jooju dafa seeb sama nag dafa jàpp wax jooju wax dëgg yàlla dem ci waxtu yoon lu ko jiitu rek maa ngi fa woon mu woo ma wax dëgg yàlla woo ki nga xam ne moo jiite teleem beeg rajo baag yëpp ni leen nag li ma leen li ma leen di wax nii musuma ko musuma leen ko wax ci kenn na ngeen ko déglu bu leen woo ngeen ñëw nekk ca la mu bëgg ba mu jeex ngeen dem te bu jàllee na ngeen ko teg ba mu ni leen doy na loolu nag kon cant foofu la mën a yem ñu ngi koy seedeel ni ko boole gi ñu suñu boole jàpp nañ ko te ñu ngi koy sant di gërëm di ko ñaanal moom it di sant sama xam naa damay damay kii sax damay def itnaab foofu sant sama rakk yi nga xam ni wax dëgg yàlla man organisation bi xawma ci dara ay ñoom sëñ Xaadim Silla ak Moustapha ak Mouhamed ak ñooñu nga xam ne man yi xawma ci dara ñoom ñëpp ñoo ko coordonné ndax man maa ngi woon sow samedi rek laa ñëw fii barab bi yëpp ñoo ko lijjanti ba mu mel ni mu war a mel kon ñu ngi leen di sant ñoom it di leen gërëm te yëmut yëmut foofu dong daanaka lépp lu ma leen sant nañ koy taxawale sax moo waroon taxawee sama bopp du ko mën kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm leen ñaanal sant sëñ Xaadim Jóob mi nga xam ni ku ko xam-xam ni ku ñàkk jot la ndax moom mooy secretaire secrétaire particulier bu sëñ Muntaxa ku ñàkk jot la Euh, sëñ Cheikhouna Mbacké mais moo ñu boole bi ñu waxee def na ma loolu moom faaw ma teewe ko fi mu jóge nii ay gan la doon recevoir pour yóbbu leen ci sëñ bi waaye daf maa yónnee message ni ma lu man de xew dinaa teew faaw ma xam ni gan ñi dañuy tardé ma ñëw profité delluwaat wala ma xaar ba recevoir leen ba pare door a ñëw wax dëgg yàlla sëñ xaar ñu ngi lay sant di la ñaanal ci taxawaay bi xam nañ sa ñàkk jot bu baax a baax kon boo ñëwee teew yi itte la ñu ngi lay sant bu la gërëm ci taxawaay boobu sëñ Bamba Mbay ñu ngi koy sant bu baax lu gën a jógee yaakaar naa waroon na fay ñëw sax waaye lii tax na mu gaawal aw yoonam moom it ku def liggéey bu am solo ci téere bi la moo def sax avant propos moo ko def di sant bu baax a baax nag sëñ Xaadim si la maa ngi ak cant moom xañ na bëggul sama tudd ko waaye dinaa ko sant bu baax a baax a baax daanaka man ay kàddu yu cant rek laa yëkkati sëñ Abou Mbacke mii mu sëñ laa maa ngi koy sant di ko gërëm ndax wax dëgg yàlla ci message rek lañ jox ko mu wax ko mu bàyyi te ñëpp ñëw taaral jotaay bi sëriñ Mamoun Mbacke mii nga xam ne daanaka def na ci yoon wi waxtu wala waxtu genn wàll sëriñ Basirou Sakho sëriñ Mamor sëñ sëñ Xaadim Mbacke mais sama xulóowaale mu sëñ Mamor Fadilu sëriñ Abo mu sëñ Jélim sëñ Fàllu sëriñ Moustapha Mbacke mu sëñ Mor Abdou Dia sëriñ Moustapha Mbacke mu sëñ Mamoun Moutala mënumaa lim ñëpp daal wax dëgg yàlla mënumaa lim ñëpp sëriñ Abdoulaye Mbacke mu sëñ Hamza sëñ Abo Madiane sëñ Ahmadou Mbacke sëñ Baara sama sët bee Moustapha Silla sëñ Cheikh Mbaye xam naa ni ak sama mbokk yi nga xam ne ñu maag ñoom ñoo bokkoon di jàng alxuraan rawatina Ibrahima Ndiaye mais nga xam ne ñoo doon bindandoo kaamil man ak moom ak sëñ Fallou Jigal ak sëñ Abdou Khadir di sant it daayiratu Rawdu Rayaahiin yónnee nañ fi sëñ May Jeng ñu ngi ni toog sant Muxaddamatul Xidma ñoom it yónnee nañ fi seen ndaw sëñ Abdou Khadir Ba Majaalis mi moom it mi ngi ni toog kon di sant it xam ni moo moo ñu dalal ca Maroc bi ñu dem muy docteur Abou Madiane bi Thiaw moom mi nga xam ne moom moo jiite département dirasat islamiyya maanaam euh, science islamique fii ci université moom it ñëw na fi teew na ab Abdou Lahad Lo moom yónnee na message di wax ngant lu mu am euh, sëñ Aliou Mbacke it moom it maa ngi koy sant bu baax a baax moom waroon naa jël kàddu waaye moom dafa dafa dafa dafa dafa dafa sëgg kàddu waaye moom ku amoon kàddu lañ ci jotaay bi ndax liir na téere bi te yàgg nañ man ak moom doon lay sant sëñ Modou Xasan Jaay ak sëñ Hamidou ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo teew bi xam naa ne du ma guddal lool ndax jotaay bi yaatu na ndax jotaay bi gudd na ba noppi waaye li ma bind ci Cheikh Mountakha li ma poussé bu ma bind ci mooy sëñ Mountakha dama ko fréquenté dama damaa yàgg ak moom yaakaar naa ni li may njëkk a dem ci moom booba Serigne Saliou mi ngi booba yàgg na lool maa ngi àndoon ak sama wayjur ak sama sama rakk wayjur ci wax Serigne Bassirou Sylla moom laa àndal dem ci moom nuyoo ji ko bi mu demee mu ne ko kii de sab sët la dafa jàngi woon ba ñëw sëñ bi dafa ma nuyuwaat ni ma soxla nañ leen lool soxla nañ leen lool soxla nañ leen lool li may wax boobu sëñ Saliou mi ngi fi boobu bu ma jumul sax boobu sëñ Moussa Bachir mi ngi fi loolu yàgg na lool depuis booba nag dañu ñu dafa dem mu may xàmmeeku di ma toppatoo fan lay jaar ak fan lay fan lay fan lay mukk ba ni ñu amee bac man ak mbokk yi toog ñi ma doon dim léegi mu sëñ Abou ak sëñ Moustapha mais ak sëñ Cheikh naa mi ñun ñoo amandoo même année bac ñoom it yaakaar naa ne moo leen yóbboon bitim réew ñoom ñooñu jiitoo benn année waaye sëñ Muntaxa li tax ma bind ci moom wax naa ko ci téere bi binduma ci moom ngir ne day doomu sëriñ moo tax ci téere bi côté sëriñ Bachir bi yaatu lu ma ci ndax loolu ñëpp xam nañ ñëpp xam nañ kañ mooy sëñ Bachir ñëpp xam nañ kan mooy sëñ Touba ñëpp xam nañ kan mooy Maam Anta Sali loolu loolu la tubaab loolu la arab di wax al ixtimaat moo tax def ma ixtimaat waxuma ci côté boobu côté bi ma wax rek daa mel ngi ñu ngi waaj ñu ngi nodd sax côté bi ma waxee rek mooy xaj na ñenn ñi mën nañu ko tudd raciste mooy côté mbaakol mooy côté mbaakol bi foofu it dafa am lu ma ca waxee mooy damaa tàmbulee ci alxilaafatu fil islaam lan moo indi alxilaafa ñëw ci alxilaafatu fil muridiya ñëw ci sëñ Muntaxa ndax nit ki kuy wax ci moom faw nga leeral jaar-jaaram ak njàngam ak dayoom loolu moo waral ma indi loola waaye li nga xam ne moo wundoon téere bi dëgg-dëgg mooy li xam nga tubaab day tàqale euh, personnage ak bi man ci personnage bu sëñ Muntaxaa laa doon wax maanaam shaxsiyatu sëñ shaxsu sëñ Muntaxaa ci laa doon wax li mu nekkee leader ak li nga xam ne noonu la nekkee référence ca ma wéet ak moom ay jotaay yu baree bari ñu waxtaan ay waxtaan yu xóotu xóot waxtaan ci murit yi waxtaan ci tawxiid waxtaan ci doxalinu dëkk bi waxtaan ci gestion ba ci ba ci li ñuy wax wilaayatul faqih maanaam système bi nga xam ni Iran moom lañ yor ci li ñuy diriger réew sëñ Muntaxa da ci yor benn téere boo xam ni tom yi kenn xamul nu mu toll te lépp liir na ko ba annoté ko moo tax lu baree bari damay wax ni sëñ Muntaxa il est incompris nit ñi des nañ koo comprendre daal moom day wax ni sosuma université complexe la sos université boobu bi muy def déclaration bi daf ni fii ak ñett téeméeri at kon moom xam ngeen ni waxul lu commencé ren beneen bi dafa am benn phrase bu mas bu am solo bu ma waxoon daf ni woon eh, yàgg na sëñ Tuubaa li mu sos lépp ci xam-xam la ko sos te xam-xam a ko mën a suuxat te am naa yaakaar ngeen bokk ci ña koy suuxat donc bu ñëwee créer lu mel ni complexe bi jël ay xale yoo xam ne lu mat cent gosses yoo xam ni ay ndaw lañ ba pare tudd 300 ans dañuy xam ne mun Muntaxa avenir u mouridisme lay tabax waaye tabaxul lu teew tey cest à moom li muy li tabax dafa bëgg indi benn benn noyau dur boo xam ni ëllëg ki nekk xalifa dina am benn collègue boo xam ne ñoo bokkoon nekk ca université ba ñu mën a débat mën a teg yoon wi ci mbir te du yàq dara ci seen rawxaaniya ndax alxuraan mooy jiitu ci ñoom xam-xam mooy jiitu ci ñoom njàngum tubaab bi door ca donc loolu lu am solo lu am solo la kon Sëriñ Muntaxa foofu lañ ko war a comprendre moom day tabax benn benn génération future boo xam ni ñoom lañ jàpp ni ñooy diriger ji yoonu murid ëllëg loolu nag àdduna ko ko bëgg a tabax il faut nga projet ay jalons yoo xam ni ci la nit ñi mën a jaar ba egg ci objectif bi nga visé ci côté boobu laa bindee ci moom. donc wax naa ci dëkk bi it ak li ma xalaat yi ma ci am jàpp ni moo ko sëñ Cheikh naa xam naa ci am na yu mu ci d' accord dinañ ci débattre man ak moom sëñ Cheikh bi mel xam naa peut être mu am yu mu ci d' accord mais damaa jàpp ni man j'ai posé le débat damaa indi débat bi donc nit ñi war na ñoo mën a indi ay réponses ku ci d' mu bind. ëllëg mën naa ñëw bu ñu boolee loolu fusionné ko mën na nañoo defar suñu yoon wii ak suñu dëkk bii nga xam ne amuñu lu dul moom donc moo tax wax naa ci lépp wax naa ci charrette yi wax naa ci transport bi wax naa ci ndox mi wax naa ba ci même entourage yu sëñ Mountakha ak ni ñu ko war a noppalee ci nit ña fay xat-xat loo raj-raj loo ba nga xam ne lépp manque d'organisation rek la sëñ bi liir na ko bi mu def ni ma li nga wax ci xalaat gi sax gis naa ko ma ne ko ah Mbacke maa ngi jégalu la war a demee <laughs> mu ne ma noonu la war a demee ba ba ci ba ci yenn yi nga xam ne ay détails la te nit ñi duñ ko seetlu cérémonie officielle bu màggal Touba ñu jël benn photo yu bu rëy tegal ko sëñ bi yeneen tey ñu teg ay photo yu ndaw loolu wax naa ci parce que damaa jàpp ni sëñ bi fi ko yàlla eggale ab photo yu mënu koo weesu tegal ko photo bu ndaw yóbbu ko daraja tegal ko photo bu mag xe <laughs> loolu sax wax naa sëñ bi ne ma lépp gis naa ko dafa maa wax ay yoon ni ma liir ba mu jeex daf ne ba nga ko joxee ba léegi lu dul alxuraan jàng ma ma ne ko ah maa ngi jéggul di mu ni déedéet damaa ñor damaa ñor <laughs> donc loolu réflexion yooyu moom poussé moo poussé ma jàngat yooyu yëpp ba ci ba ci ba ci ay parking privé yoo xam ne damaa jàpp ni sax dana allégé tout circulation bi ci biir dëkk bi Màggal Tuubaa bu ñu ko defoon ci côté yëpp nga xam ne boo ñëwee gaare sa oto jël ba bis yoo xam ne dañ lay indi ba ci périphérie wala ci jumaa yooyu yëpp yooyu yëpp wax naa ci ay proposé naa ci ay ay solution te jàpp naa ni bu ci kilifa yi jotee li ci des it mooy mairie bu Touba ni ko sëñ bu waxee ba ci organisation Rawdu Rayaahiin ba ci comité d'organisation Màggal Touba yooyu yépp wax naa ci waaye nag lii dalal sama xel mooy sëñ ndaxa moo préfacé téere bi moom moo def muqaddima bi moo ko bind te it da koo liir ba mu jeex mu bind ci kon mën naa ni carte blanche la <laughs> léegi li ci nekk li ci nit di mën a xebet sëñ bi ko njëkk a gis li ci nekk lu ci nit xam naa yaakaar naa dina xaw a def polémique tuuti parce que raw raax yi moom je l'ai pas xaw naa leen a xoos tuuti comité d'organisation bi noonu mairie bu Touba noonu <laughs> j'ai pas mis damaa wax ni ma ko xalaatee waaye nag li suñ Cheikh naa wax li ma itteel rek mooy am na ci ñoo xam ne xaj na peut-être sax juddoowuñ Touba waaye man sama way juru jigéen sax Touba la juddoo kon man Touba laa dëkk mënu ma fee génn <laughs> waaw donte nag am naa cosaan maa kon <laughs> sama sama waa kër maam sëñ Mat si la ñaaxee ñu ngi fii jotaay bi toog waaye damaa xam ni Touba la ñu am te ñoo ko bokk te nun noo ko war a defar loolu moo tax ma waxe noonu loolu moo tax comme ni ko sëñ Cheikh naa waxee rek xam naa kon maa ngi mayee juddal jotaay bi maa ngi sant mboolem kilifa yi fi teew yëpp sëñ Xaadim mii bu fi teewee man fee teewul sëñ Muntaxa ndax sëñ bi it bërki démb dox bërki démb rek dem naa fa yóbbu ko ma a def fee benn moo xam dama yàgg mu ne ma waaw noonu la baaxee noonu la gënee waaye sàkkuma ci moom sax mu yebal fi kenn ndax xam naa jamono bii fi mu toll ak ñi nekk ci moom fi ñu toll moo tax sàkkuwuma ci moom mu yebal fi kenn te yenn yi bu day xaw nuru folklore bu mu ëpp sëñ bi yebal fi daanaka du am sens lool waaye sëñ xaadim mii bu fi nekkee man ko fee teewal te bu eggee bu ko jot jotlee jotaay bi dana ci yéew te ñëpp xam nañ ni mate na ko ndax sëñ bi am na lu mu ko wax ci téere bi wax na ko te moom it xam naa sëñ bi dana ko jox téere bi kon maa ngi sant ku ma tudd ak ku ma tuddul sama mbokk yee nga xam ne maa ñoom ñoo bokk bàyyi ko sëñ Seexum sëñ Modou Fatou Khari mais ak sëñ Cheikh Mbacke mais nga xam ne it ñoo bokk lépp maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ku ma rek maa ngi jéggulu bu baax ci tëli ku soxla téere bi it ma nga fay ci taabal ji xam naa liñ ci jotoon a bareegul ndax xataayu màggal bi di ko waajaat waaye incha allah jombul feeg weer wala ñaari weer danañ ci ci version arab bi danañ ci indi lu mat junni wala lu ko ëpp loo xam ne ku ko soxla bu bu boobaa boo jokkoo ak maktabaat yi nekk ci biir dëkk bi rek di nga ko am version française bi moom mi ngi fi version française bi moom mi ngi fi moom yaatu na kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp dëkk bi xat na màggal gi jege na waaye bàyyi ngeen it yëpp ñëw kenn ku nekk commencé nga bàyyi say gan ca kër ga kon mënuñu lu dul sant leen sant boo xam ne ci sol xol la du ko tibbee sëñ Xaadim di sant sëñ Abo mais nga xam ne moom it ku ku ku man na fee teewal waa waa kër sëñ yëpp ak ñëpp ñi nga xam ne amoon nañ yéenay yéenay ñëw kon sëñ Mourtala maa ngi lay sant yow la gërëm di la di la di la delloo kàddu gi xam naa guddal naa lool maa ngi maa ngi maa ngi jégalu ñëpp di sant ñëpp wa axiru da'waana alhamdulillahi rabbil alamin والقلم وما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 رحمة ربك بمجنون